abdan muradilan لذكر حكيم عن جناب الهدى سربا أرتل ما دمت حيا واكتفي وفي بإبليس علمت دبا إلي الهداي وهو مهن وواسع له الملك ثم الحمد والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل باطل وفارقت تدبيري بدفع والجلباب رديت به ربا كريما مكرما وقال لدار جسمي وأودة الخلق خديم خديم له ملك عوز هوى الخربان نجاتي من الاعداء والبار والبلاء غريبا وحيدا من عزيز ملا الجربان هداني ذا لا بال ما كدت هالكا بجاه الذي خزين الهجم والغربان انادي في سر وجهل وارتجي سلائي وإسلائي بأهل والتربى سلمت له لا للغدا ثم كانني وكنز كتاب النبو يكسف الكربى سلمت له لا للغدا ثم كانني وكنز كتاب النبو يكسف الكربى هداني بي ربي وأهدي بنوري إذا ساء ربي سوي الموت والقربان waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla wala quwwata illaa billaahi aziim ñi ngi fii ci aéroport international Léon Mba bu Libreville ñëwoon nag teertu ñi nga xam ni dañoo ñëw ci karawaanu Mayumba muy topp jaar-jaari Sëñ Tuubaa fii ci Gabon ñoom nag agsi nañ ci vol spécial boo xam ni muy Air Sénégal ñëw nañ Libreville ci huit heures du matin ñu war a nag agsi ci dëkk bi comité bi nga xam ni nag mooy comité d'organisation bi ñëw teertu leen fii war leen a jëlee fii yóbbu leen ci seeni i dal euh, programme bi nag ni muy demee mooy ñoom ginnaaw bu ñu leen yóbboo ci seen i dal fa ñu dal euh, foofu lañ leen di fekk ak xéewal yi ginnaaw loolu 16h ci la cérémonie officielle bi am ndax retard vol bi moom moo tax 16h 16h30 dañ leen jëli ca barab yañ dal yóbbu leen ca saal ba bu saal bi jeexee nag ñu dellu leen ñu dallu ci seen i kër ndax suba 6h du maanaam la ñu war a départ jëm Mayumba kon loolu retard vol bi moom moo ko def waaye ñoom sëñ Kàllaam mi nga xam ni moom moo nekkoon euh, commission de transport bi Dakar nga xam moom moo affrété woon pèlerins yi andi leen fii moom mi ngi ñuy taxaw ak soxna Moussa mi nga xam ni moom mooy responsable relation extérieure u caravane Mayumba moom tamit mi ngi nii taxaw waaye ku gis ñoom sëñ Alaaj sekk fii suñu wet euh, nga xam ni moom habité wu caravane bi la saa su ne mu di ci ñëw kon di nga xam ni kon euh, gan ñi ñëw nañ nga gis sëñ Gilaay Toob nga gis ñoom sëñ sëñ Cheikh Omar gis ñoom sëñ Omar Dieng mi nga xam ne tamit responsable ci karawaan bi ci au niveau de Sénégal mu yore mu yore mu yore finance foofee moom sëñ Omar Dieng ak soxna maam Issa Mbacke ahlu café gis nga mbooloo mi mu àndal nekk nii am nañu bawoo Gambi ñu mel ni ñoom sëñ Alaaji sekk Gambi àndal ñu ak sëñ Moustapha Seck Gambi ñu ngi ñëw euh, ci sëñ boole ak njiitul nag Mbacke mbul moom mun Mountakha Mbacke mi nga xam ni ñëw na ak sëñ Ahmadou conférencier bi ñoom bi ñu accès xam nga wal bi daal depuis bii dañu voyagé yóbbu nañ leen ña nga dal xam ngeen ne lu jiitu loolu sëñ Cheikh Khadim Fall accès na fii Gabon barki dem ma ngi ci résidence ba ca glace kon daal mbooloo mu bari délégation bu forte boo xam ne une cinquantaine de personnes ñoom ñoo wàcc tey jii fii ci libre Libreville fas yéene nag topp jaar-jaar sëñ Tuubaa yooyu ci maayo ba nga xam ni sëñ bi woon na bañu ma ko topp samay jaar-jaar waaye loo sori sori doo gis mukk lu dul ndam kon xa jànkati xaside yi ñëw nañ borom pas-pas yi ñëw nañ commission bi teeru nañ leen xajoon nañ leen suñu xol waa Gabon gépp nag ñu fas ko yeneen ànd moom kenn ku ne xam ne ni caravane bi ren day dugg ci programme touristique bu Gabon ministre bi mi ngi ci bain de bain de roi bi moom nga xam ne bu ñuy jaay Gabon koy jaayee pare suba montagne centre ci 6 heures du matin foofu la ñuy taxaw tàggoo ak ministre bi def fa joxe fa mot de départ ñu war a jëm nag yomba jaar Lambaréné euh, nga xam ni daal kon daal suba li nar am daal signal baa ngi nii ñoom sëñ as suukar ci communication bi ñu ngi nii sëñ Mourtala Gaye mi nga xam ne moo yor caméra bi di ko jël moom tamit euh, euh, nu ñu koy waxati Tawfekh Production mi ngi nii. am na tamit journaliste yoo xam joge nañ Sénégal représenté fi TFM ñu mel ni soxna Fatou Dieng gis nga ci ginnaaw noonu ñoom sëñ Xaasim ñoom sëñ Baddo kon daal liggéey baa ngi noonu xam naa dañuy jël rek euh, soxna Moussi mi nga xam ni nag moom moo ñu dalal ci Gabon moom mooy yor liggéey bi mu joxe ci ay baat yoo xam ne ci français la koy jox ndax lii ni ñu intéressé ni la intéressé waa réew mi ñu ngi ànd ak ministre bi xam ne mooy ministre des affaires nga xam ne sëñ Mountakha moo ko fi teg mu dinu jàppale ministre de la communication tamit moo it ànd na ceeg ñun ay journalistes nett na ko suñ disposition ministre de tourisme bi nga xam mooy suñu partenaire tamit yebaloon na fii directeur de cabinet moom it ñëwoon na teertu si ambassade du Sénégal noonu kon daal mbir mi mi ngi nii mot de bienvenue baa ngi nii soxna Moussi qu'est-ce que vous disiez selon Euh, Sénégalais qui sont arrivés aujourd'hui et vous avez l'habitude de les accueillir ici. Ils sont revenus aujourd'hui plus nombreux qu'avant. Quel mot de bienvenue que vous allez leur adresser Merci, Tonton Benk. Je vous souhaite la bienvenue sur la terre de Cheikh Amadou Bamba. Amen. Soyez les bienvenus et soyez bénis. Amen. <laughs> Merci. Vous l'entendez comme ça, donc Soyez bienvenus. Gabon, la terre de Cheikh Ahmadou Bamba, la terre où le Cheikh Bamba a été pendant 5 ans, 7 ans, 7 mois à Mayumba, à Lambaréné, là où il a dit Yassarali Mounala dans Libreville, Konda Libreville ngi nii. Wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Tawfekh وسالكنا للخل لي بار ما ينبا muy Tawfekh jugee